kay maa ngi gërëm yàlla ma sant président Jammeh yàlla palaasam bi yàlla bu may ko fanweer ak gudd bu yaram billaay man kay mënumaa wax dara si président Jammeh waaw xanaa ma sant ko rek Mm-hmm. wa digalel loolu am na solo binto xam nga eh, jigéen moom su eh, amee doom wala ku koy dimbale pour mu am doom rek goo ma ne am na feyam eh, léegi nag am na sa ay moromi jigéen yu ci bari yoo xam ne ñu ngi toog ci biir kër yi xëj na ñoom tam ñu ngi am jafe-jafe yu ci bari te gis ngeen ci télévision bi ak ci rajo ak fu nekk ñu ngee wone ay nit ñoo xam ne jaar nañ fi te yàlla dimbale na leen ñu am doom waa léegi yal na leen yàlla boole ci ñooñu ah, léegi nag am na ñoo xam ne ñu ngi toog na ñu ngi xalaat naka lañ fi war a ñëwee loo leen di wax. suma ñetti friend ñoo yëpp dañ ñu naan garab fi waaye ku nekk dafa am doom waaw am nañ doom billaay moo tax man tamit ma téye yàlla ma ne xaaral ma ñëw si président Jammeh man tamit ma am doom moo am ne ma at least waaw. <laughs> waa dëgg la comme que yow ñaar nga am te gannaaw boobu yëpp yaa ngi am jafe-jafe soo umbee ba yaakaar rek mu des ci biir bi euh, yàlla mun na lu nekk euh, te ña mun na koo jaarale ci président bi loolu am na solo euh, léegi nag yoon bi ngeen ñëwee fii ak léegi na am na benn dépasse boo fi def. non aw ma even saabu ka saabu sa man musuma koo jënd nag musuma jënd mbuur musuma jënd dara. <laughs> fii kay moom alhamdulilah rabil alamin man wax naa la rek lu ma am fii. aw ma ko suma kër président kay moom kenn du ko mun a fay xanaa yàlla rek moo koy fay waaw. ndaw si yow nag tur wi. Ndiaye Mbow. Ndiaye Mbow. Ndiaye Mbow yow foo dëkk. maa ngi dëkk Sénégal. ah yow Sénégal nga bayee ko ci ban boor Sénégal. Kaolack waaw. Ah, léegi eh, Ndiaye Mbow naka nga yëgee faji président bi yow comme yaa nga dikk ba Sénégal. sama mag moo ma kool ne ma faj mi commencé na nga ñëw. ndaxte man wër naa ba sonn ma presque fukki at maa ngi si sama néegi sëy yàlla mayagul ma doom wër naa fu nekk nag faju naa fu nekk ñu digal ma fii nag mu ne ma ñëwal fii ma ñëw fii. yow sa mag boobu fii la toog Gàmbi fii. waaw fii la nekk fii la nekk di sëy. léegi mu ngi mel ni moom bi mu yëgee faji président bi moo la ko yëgal pour nga jéem fii tamit. waa moom mu ko yëgal ne ma pour nga jéem fii ba ñuy bind la mu fi bindoon. joxal ma sama photo yëpp kom ko déggee rek la ma woo ma ñëw. Mhm. waa léegi comme que yow am nga fukki at ci sa biir néegu sëy euh, te yàlla wërsëgagut la doom loolu yan jafe-jafe la la indil yow. sama néegu sëy ah manqué na ma tuuti rek de mhm, manqué na ma tuuti ndaxte jigéen juy sëy ku ne sa néeg yaa ngi fa bugg doom yàlla dana la ko defal mu may ñu doom daal lañ fi wut si ci kàttanu yàlla. waa léegi njaay bi nga jogee eh, Sénégal ñëw fii eh, biñ la ne la dinañ la yóbbu ci faji président bi loo xalaat. amuñ benn jafe-jafe de amoon naa yaakaar na dinañ jàkkaarloog président bi mu jox ñu ay garab ñuy naan. Mhm. ndaxte déggoon nga xibaaram ak laa biiram mu mel. waaw dégg naa ko baaxam ak laabiram yëpp na te bañ fi ñëwee ba léegi ñu ngi koy gis ak moom mu ngi ñëw di waxtaan ak ñun ñuy ree di ñuy jox ay garabam ñuy naan wa lolu lolu mom am solo president rew di la faj di la jox ngay lek euh, di la waxtaanal di kaf ak yow te lajut la ben dépasse ndax du mom ngay laju ñu dara ndaxte lii mu def mom ah baxna de baxna na ñu ngi ñaanal fu ñaan yem nak yalla jagal ko ci rewum mi may ko jamm euh, légi nak sa moromi jigen ñi nga xam ñu nga tok Sénégal euh, té yalla jox leen jafe-jafe pour am doom xëj na ñu ci bari ñu ngay xalaat ne faju bi day du yomba loo ban xibaar nga leen di yónnee. ndax su ma demee maa ngi leen di lancer appel ñoom ñëpp ñu ñëw fii Gambie président bi danañu dalal ñuy jox ñuy lekk dañuy jox ñuy naan ñu ngi tëdd fu baax ñu ngi ñuy toppatoo te fayeeku ñu benn dërëm te suñ njëkkër yi xam naa buñ kii déggee lii seen xel dinañ dal. ndaxte lii moom am fi benn problème moom dëgg fa yàlla. léegi fa wax nga ne jaar nga place yu bari Sénégal ci wàlli faju ndax foofu de am na ay dépasse yoo ci def. foofu da dem si hôpital yi ñu bind la ay ordonnance nga dem jënd dem naan wala si garabi olof yi nga dem joxe xaalis ñu jox la nga dem yóbbu sa kër toog di naan noonu la de ngay joxe ay xaalis moom. mel ni dépasse nga lu bari balaa nga agsi fii. waaw bon nag fii nga xam ne dépasse te président bi toppatoo na la yal na la jik njaay mbow jërëjëf ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàggal leen fi yéen seen liggéey bi su barkee Mawlana naa Ibrahima Niass benn tey bokk yi comme niñ leen ko waxee rek ñu ngi fii ci Kanilaay di waxtaan ak jigéen ñi nga xam ne ñoo ñëw faju si fii ci président bi e, ndaw si yow nag naka nga tudda man maa ngi tudd Aysatu Haydara Aysatu Haydara yow waa nga man waa Sinthiou Balya laa waaye maa ngi sëy Dondonkoola Serekunda laay sëy waaw. léegi Aysatu yow ban jafe-jafe nga am ci wàllu njuram doom comme loolu moo la fi indi. waaw man amoon naa benn nag bu góor Yaya Jammeh leen ko tuddee am na 11 years léegi mu ngi dem Gate 4 su school ubbee soo depuis loolu nag dama taxaw xam nga aw ma soo yàlla def last week ma ubbi register woon naa lu nag xam nga soo ma ubbi TV rek daj si ba ma expérience ma jëkkaat mu ne ma amul benn problème waaw ba mu ne ma soo paree rek mën nga dem soo ma dem bés bu ne la registré su ma dem ñu ne ma teel lañ war a dem soo ma xool suma jëkkaat ma ne ko ah gars yi nag teel lañ war a dem de mën ma ok léegi taxawaat rek mën naa la andi sa bagage yëpp nga ànd ak yi nga dem benn yoon amul ñëw si kër gi gitu. soo noonu laa toogee indi suma bagage after loolu ma ñëw ànd ak boss bi ñu ñëw waaw léegi Aysatu ci ñaata at nga sëy yow. sëy naa daal 12 years waaw. mu mel ni ci sa taaw ba daal foofu nga taxawee ba léegi. taxawee ba tey léegi nag lan nga yaakaar ci faji président bi ba tax nga ñëw fi. ah dama gis ne am na ñu fi ñëw ñu bari xam nga te ñu fi ñëw yëpp ma gis leen am nañ te gannaaw yàlla yonent bi am naa si yaakaar waaw bi ko gis naa ñu bari jaar nañ fi waaye rëccu wuñ ko te rusut xam nga rusuñ si so moo tax ma ne xaaral ma ñëw. because nit ki moom si ut fu nekk ngay làmba waaw. Euh, léegi président bi moom euh, ku nekk xam na ne njiiti réew gàddu réew lu jafe la mu bugg a cee boole nag ay faj yu ci bëree bëri bokk ci di bii nga xam ne eh, ku nekk xam na ne ànd na ak yu bari faj gu jafe la ci moom euh, waaye nag mu ngi ko def di ci jàppale jigéen ñi te laajut leen ci benn dépense léegi nag nit ku mel noonu ak taxawaay yi nga xam ne moom la taxawee ci jigéen réew mi eh, lan nga am pour wax ko. président Diame ñun amuñ dara ku dul ñun sax ñun amuñ kenn amul dara loo ko war a wax du gannaaw yàlla a yonent bi di ko gërëm di ko santa di ko ñaanal si ma kaama bu mu nekk nii yàlla na egga fu gën a kaw a fii waaw ku ñëw si faj bii nii sax yaa ngi ñaanal président Diame because lu moo def si réew mi ak lu moo def si dëkk bi ak lu moo dimbale nit ñi ñu dul ñun sax ñëpp gis nañ ko ku ko gisul tamit ku ko déggul tamit gis nga ko sa but sax yaa ngi dégg soo loolu noonu ñun fii bu ñu fi ñëwee ba tey bos moo ñu andi suñoo suba suñ xëyee boos moo ñu andi be fii suñoo dellu boos moo ñoo delloo suñu añ suñu reer ndéewoo dara manqué wuñu tëddukaay dañoo tëdd ba mu des sangu ba mu neex waaw garab bi ñu ngi ko naanee nu mu waree feyuñ dara lañ si feyut amuloo dara loo ko mën a fey lu di ko ñaanal rek yàlla may ko gudda fan ak wér gu yaram may ko kattan eggal ko ba fu mu war a egga waa loolu am na solo parce que di la faj ba pare di ci dépasse xaalisam loolu euh, yombut su amee tamit xam naa ne amul ci ñaareel eh, bon nag ay Aysatu looy wax euh, sa moromi jigéen ñi seetaan. moom moromi jigéen ñi seetaan lu mel na mun a wax loolu mooy ne ku nekk soo amee sa problème nga feebar mbaa nga am gàllankoor si sa mbiri biir nga génn si feebar boo mun di am nga génna si parce que feebar kenn du ko nuba soo amee feebar nga génn xëy na yàlla mun na laa lifin dimbale ku ñëw fii nii. waaw sabablu ku ñëw fii bu fekkee ne sa sabab mu fi su yàlla defee di nga am. waaw bala yàq sa xaalis si biti di génne ay 1000 dollars mbaa 4000 mbaa 3000 mbaa fee ma jooni jooni dinaa defal lii doo gis dara fii nag amul loolu dangaa ñëw toog ku la ku nga xam ne daf laa jox añ jox la reer jox la boos jox la fay fanaan ah faj la te faj bi dafaa dem normal amul waste time garab bi dañ ko naan mu waree ah loolu ku la ko a defal kooku kay. soo ko mënta jàppale mënu la ko wax jaaraama jigéen ñi génn si ñu ñëw ut si garab parce que doom mbir yàlla la waaw doom yëfi yàlla la yàlla moo ko mayee waaye nag ku nekk da ngaa ut sabab lu waaw nga ut sabab waaw te yaay jam wax ñu wax nañu ko démba dañu ko baka démba moo munut yàlla moo mun te si yàlla la dee ñaan waaw yaakaaru dara yaara ak yonent bi moom la yaakaar foofu la dee ñaan muy faj nit ñi waaw kon ñu nit mu ne nañ wér suñu yaakaar si yàlla te xam ne yàlla mooy maye. te ñun tam du leen téye. Eh, Ami Silla eh, yow it eh, gis nañ ne yaa ngi ñëw fii ci faji président bi yaakaar naa ne yow tam da nga am jafe-jafe ci wàllu jur. waaw dama am jafe si wàllu jur waaw loolu moo tax ma ñëw fii waaw. yow fan nga dikka. man Talinding laa dikka waaw Talinding laa dikka. ban jafe-jafe nga am ci sa wàllu jur. jafe bi daal mooy maanaam dama sëy foo yées